لا أنت القدير نسي أرجو بخدرتك سيسيا تسدني بعد وصنايا جميعا البلاد جميعا جميعا بابا نانا نبست ما كان دي سوق بكونك لأبدا يا نلسي ترنا برغبايا هندي بقولك يا دنيا هندي بابا انا نبسط ما كان ديسوق بقولك يا دنيا نلسي ترنا برغبايا هندي بقولك هندي دنيا واخرى هندي ارتاب بامبا نانا اتل مكوزي بتاعتي مخلصة وسوبر ريك يا ربي خلوبايا هندي هندي صوبك ولك ليه ستر دابر بابا نانا الظلم كوزي بتاعتي مخلصة وتوبق ريك يا ربي خلبايا هندي هندي توب قولك هندي هندي أرداد بابا نانا وجه بعزيك ليس لا كل بخير حمد الذي سنخلط أنك ودبايا إني إني سوء بقولك دنيا هندي بابا دينا ربيتني بي دار دنيا جميع وقال ليلة بدي وعمت ربي مسهايا عبست معك همي نيزو أمي كونك لدنيا وغرال سيلسي ترداد بابا نين سخسر ما دولي ما فاق الأمنا كرم الله وجال كتاب بقفيت داريني مرهايا سخسر ما دولي ما فاق الأمنا ربنا كرم كرما كرما بمنال سخسر ما ضل ما فاخ لا كرم كرم بقى في دارين مرهايا ما ضل ما فاخ ما فاخ ما فاخ دارين مرهايا bamba nee na soxor ma dolli ma faaxal amul karamal la waajal kita bëgg fi daarayni marhaaya ma faaxal ma faaxal ma faaxal ma faaxal soxor ma dolli ma faaxal amul karamal la waajal ذاكر بقفي داريني مرآيا ما فاغ ما فاغ بمنا لي سخن بواما كوس الخوم تروية الراثي ودوازم ربي سخيا سخر ما دلي ما فاخر دارين بمن يا سلبخاء نسي أبخى أدني ومرئ أمنا الخبير من سيدا وامي بخيايا ما فاخر المناكر كمن man bamba neena billahi ka waji jaatu waji da ayyal maliki fale say karamal ya rabbi dawa ya billahi ka wajatu dayan dayan karaman karaman bi dawa علي سيد كرم يا رب بنا ويا كرما كرما فعل فعل سيد كرما يا رب بنا ويا كرما بمبلينا فعل سيد كرما يا رب بنا ويا لنا فليسي كرما يا ربي دوايا كرما bi faale say كرما آمين فليتجد كرما يا ربي دعوايا فليستجب كرما كرما كرما لب نجيتني فل تسدني رابطا جيت الفلت مني ومما يغيه مسوايا إليك وجهت داعيا ملكي مالي سجيب كرما يا ربي لبي نجيتني أمس من نودي لا سل إلا فليا مكن لي واسل منك جلوايا إليك وجهت وجهي وجهي إلى أي المرجع فليس جيب كرما يا ربي نوا بابنا أنت العفيس سي أبخي ما يتخافك ربي سي وسلنا يا ربي يا إليك وجهت ملكي ملك زليم كرما كرما كرما وكل في رافئة وتمامي يا ربي ولي أمدل ربي مزرايا إليك وجهت داي داي الملك الملك كرم يا ربي بابا نانا لك تنسي رافي كذبا قوت مامي يا ربي لي أمدل ربي مزرايا باين كرما بابا نانا لقل سيرافي كتب القوة مامي يا ربي وبي أندل ربي في مسرايا إليك وجه داين داين ملك داين كرما يا ربي bamba nee na rabbi wa li anda rabbi masraya kon nag borom nexe dugal taxaw te ko màggal Cheikh Babacar borom teer gaan jaay jar na ko bu du màggal Cheikh Babacar gaan jaay yal na ko fekk déwén der day sëñ Touba jug taxaw te ko sant bi jar na ko ku du màggal sëñ yal na nga gudd fan ci barke rabbi dama neena rabbi wa di anda rabbi masraya rabbi bamba neena rabbi wa di anda rabbi masraya rabbi أمل ربي وأبدي عمدا ربي مسرايا ربي أبدي ربي وأبدي عمدا ربي مسرايا ربي ربي وغاب لي حمدا ربي مسرايا rabbi naan rabbi bamba nee na rabbi waxam bi yaxamba wati masaya rabbi waxam hamdan rabbi rabbi waxam bi yaxamba wati masaya رب مسايا خربي يا يا لعيبة فلتخمي مجرايا إليك وجد وجهي ملكي ملكي يا رب دوايا ذكرتي خاليا

ما فأخاني لا ربي مهدايا إليك وجدوا دايا دايا لطف الوجوه وأبني سلل هكا الأبتوائل منك مبدايا إليك وجهت وهيا إلهي الملك ألم تجدك ربا وججات في زمدي وال إلى أقفي رجب في صلاة صيف صعبان مرجايا

أنا مرجايا فارب بي سلمي بي تاء ديم لالي إبلاء أدل ما لالي أدخى بي من جايا رجعت في سبدي لك في لك في رجبي لك في kon una weran duwa male wan jaya jatu fi sabdewa akafe akafe akafe فلا يفارقني ما لا أفكر Kunduz ki sakwaya Kunduz ki sabdewa Ila nafi rajmi Wada kula zaymi Samal marjaya Uluban bikat Kulai farihni Utamal la في رجب خير بخل خدا هجيب لا كل يا من بقولك فارقت بلوايا يا خير بخل خدا هجيب لا كل فيها سيدة سيدة كن ساكنا لكم نبيا أنبكم وجهه بالكتف والآية فيكم كن ساكنا لكم نبيا وجهه لك سد الخسائد كم ساكنا لكم

شاكرا لكم بناء حكم وجهه في كتف والآيات كل قصائد بكم شاكرا لكم يا بكم وجهه كتف والآيات سنت القصائد فيكم شاكرا لكم بناء بكم وجهه للكذب والآية فيكم ساكرا لكم بكم وجوه للكذب والآية توبى لحبد النور تنسى لخل المخل مدينة بخل بالأوخاديات خسائد بيحنا maa ngi ñaan di sëñ Touba ku jóg taxaw te ko yéen bu yàlla na nga tàggoog bàkkaar si barke xasaayit bi ku jóg taxaw te na nga tàggoog bàkkaar si barke xasaayit bi xasaayit bi jeex maa ngi ñaan ko jox addi yooyu xasaayit bi yàlla ne kenn ku ne lamb addiyee xasaayit gi jox ko jar na ko lamb leen addiyee xasaayit gi tuubaali abdil muri il saadiq law aw aw adiyaa عبد النور بن صالح الله خلق مجلب بن أوهديات عبد المور بكسر تولا لكتل سيبار ابن مجل برمتوبا برمتوبا توبى لحبب النور من صالح الله في خلق مجلب بالأوهاد أوهاد طوبى لعبد الموري طوبى لسواد خلهم طوبى أنا مريدي طوبى لحبد النور طوبى للجلسان خلهم طوبى للجلسان بالأوهاد أوهاد طوبى لعبد ana murid yi loxo ca kaw du màggal borom Tuuba borom Tuuba Tuuba sa dëkk ba Tuuba le habdi nuru kon saali xasla madina bu bil awxaade ku fa nekk te yëg sëñ Bamba nañ maa sa jub taxaw ca kaw màggal borom Tuuba ñaan naa ku jóg màggal sëñ Bamba yàlla nga fekk déwén bëgg a fekk déwén di doon taxaw ca kaw màggal borom Touba jar na ko. bu ñu yem màggal tur bi Cheikh Babacar Cheikh Gandiaye jàmbar ja jar na ko. Touba Touba Touba ku bëgg Serigne Touba Touba le habdil murid من سالف اللوم والرضا بالأوهاد طوبى لعبد المريد طوبى طوبى طوبى صدق طوبى لعبد المريد من سالف اللوم والرضا بالأوهاد طوبى انا مريدي انا مريدي مانغاليل مبرم توبا توبا توبا توبا لحب دي توبا توبا توبا توبا ملازما لرسول الله سيدنا ku bëgg dëgg dugg aljanna sayyidina muhammad mulasiman li rasulillah sayyidina mulasiman li rasulillah sayyidina لرسول الله من تبي محمد ملازما لرسول الله سيدنا لازما لرسول الله لرسول الله الخاء جمة يا يا وراء الخاء جمة جمعت سين الخاء محجمة يا وراء محجمة وعد الله أو نور سماء يا لك الله أو نور سماء أو نار سماء الله أو نور سماء allah aw nooru sama yàlla màgg na allah aw nooru sama allah aw nooru sama ana muridi allah aw nooru sama yàlla kenn la la allah aw nooru sama wala di munfaridun وليس يدفي نور الله يدفع الله نور السماء الله نور سماء والأرض منفردا ليس يدفي نور الله نبي إن الخزيب سوداء وخراء خسدامي خسدامي إن الخنزير سوداء وخرباء سوداء خسدامي إن الخنزير سوداء وخرباء سوداء بامتوبا أمو الأبو دندم فين دي بندم moo ne ca kanam laalaay ku bëgg Serigne Touba yëkkatil say baaraam lu màggal borom Touba Ahmadu Bamba borom Touba amul ab dendam feeñ na ci mbindam moo ne ca kanam laalaay Seex Ahmadu Mbàkke seenati min ndaw moo ca kanam sal warana amul ab dendam amul ab min ndam seenati ca kanam waxta la amul ab dendam ana waa belal ana soppey Seex Abdulaat borom daare kaamil belal baayu sëriñ si bi borom Tuuba amul ko mu yemmal moo jërë dëgmal moo ma yebimmal araxaawaay Ahmadu Mbàkke Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba Seex Bamba ba ak ay xarbaax ay baax ñoo jara saare Cheikh Bamba baax Cheikh Ibra Fall Maam Cerno Cheikh man yi nga seexal Cheikh yi nga seexal mosu ñoo Abdourahmane Ba sama Samba Diop Sam sa Adama Gueye sama bab borom Tuuba seex yi nga seexal masu ñoo jeexal le baaxal sa mbira Bamba Cheikh Modou Sakhir Ba Cheikh Darou Assane Ndiaye Cheikh Xamta Toog Cheikh Saal Jël Cheikh Mourabak Mornal Cheikh yi nga seexal mësu ñoo jeexal mu yow ba Samira Bamba mësu ñoo jeexal mësu ñoo jeexal baaxal borom Tuuba seex yi nga seexal masu ñoo jeexal baaxal samira bamba seex isa jën jeexal Seex Jiiri waa daa bi sub Seex Babakar Cargaan teg si dugg si la leen seex yi nga seexal mësu ñoo jeexal lu yow baaxal samira bamba mësu ñoo jeexal mësu ñoo jeexal samira bamba seex yi nga seexal mësu ñoo jeexal mësu ñoo jeexal lu baaxal sabira bamba da waa mbaxal lambaay mbooloo mi maasa leen di taxaw ca kaw ñu màggal seen cër Diouf Lambaye ba seen tub taxaw ca kaw ñu màggal Seexul Xadim ko def yàlla nga fekk déwén baba jox na ba seen tub taxaw ca kaw masuñu jeexal masuñu jeexal li ma xal sa biir Bamba ana waa mexe ana soo tey Seex Babacar Thierno Gane Seex Babacar Thierno Gane borom bi xibaar seex yi nga seexal ma si jeexal lu yaaba samira bamba ana waa mexe ana seex yi nga seexal ma si jeexal samira bamba ku jug màggal Cheikh Babacar Thierno Ndiaye yal na nga fekk doon ci daraja Sëñ Touba ku jug màggal maam Sëñ na sa lépp baax ci daraja Sëñ Touba bu ñu leen màggal borom seexal borom mexe baax Cheikh Babacar Thiorogal Cheikh Babacar Thiorogal Njaay borom mexe baax Cheikh yi nga seexal mosu ñoo jeexal Sabira Bamba ana waa Lambaay ana waa Bawal ana sa bay sa bay Cheikh Babacar Thiorogal Njaay ay sëriñ ma ju seex yu nga seexal mos ñoo jeexal lee baaxal sabira bamba mos ñoo jeex mos ñoo jeexal baaxal sabira bamba borom mexe baax seex yu nga mësuñu jeexal mësuñu jeexal lu yaa baaxal sabira bamba Seex Bamba kër jargaan Seex Bamba gërëm na ko baaxal baaxal sabira bamba kum kum wata bay ma am say njaay faal sa tollu waay kawe na yaay waay yaay waay bamba Seex Ibrahima ku bëgg maam Cheikh Ibra Fall yëkkatil seen baaraam bu màggal baal Fall ba fa jëkk kawel nga baale tëral nga njaayeen kawel nga baale kuy Baay Fall jugo sax ko jogo màggal Cheikh Ibra Fall jar na ko ana Baay Fall yi kawel nga baale kuy Baay Fall jugo jaay màggal Cheikh Ibra Fall jar na ko ana Baay Fall yi kawel nga baale tëral nga njaayeen ñaanal muridina yaay la ko Bamba leeral muridina yaay la ko Bamba ana Baay Faal mag leen baabu murid leeral muridina yaay lamp Bamba Ibra Faal yaay lamp Bamba leeral muridina yaay lamp Bamba Ibra Faal yaay lamp Bamba leeral muridina lamp Bamba Alaaji Fallu Kankos la sottee baayu benn kuréel bu gindee xamal la réew mi sëñ Fallu sama waajaa ngi noonu maa ngi ñaan ku jóg taxaw ca kaw ndukkal sëñ bu amee tànk yu métti jóg leen taxaw ca kaw jaay ndukkal sëñ Fallu jërëm bu gindee Fallu ku làmb addi sëñ Fallu ñëw fekk fii sëriñ Xaadim Kebe jox ko ko yàlla nga tàggoog ñàkk ba sa addi sëñ Fallu moo sañkin mbir alaaji Fallu ba def di dir ku ne bu gën be xamale réew mi sëñ Fallu moo sañkin mbir ana soppey alaaji Fallu sëñ Fallu sëñ Fallu sëñ Fallu ni ma seq faddu ma seq faddu laa dina seex fad dina seex la la ma seex am na loolu am na bismillah sëñ Fall Baara bàyyi Abdul Karim ma kaarima la la ma seex am بسم الله سن فلو على جفلو لما ساوخ أمنا بسم الله سن فلو لما ساوخ أمنا على جفلو بسم الله يا جدو سنما جارتنا يا فرغا يا جدو سنما مسيخ ماما سيجا خطر saburay nga fi diine alaaji fal fi diine laay borom dindi borom dindi borom dindi borom dindi borom dindi borom dindi sëñ fal saburay nga fi diine alaaji fal fi diine laay alaaji fal saburay nga fi diine alaaji fal fi diine laay sëñ fal ala juhanna sabur nga fi diina fi diina laay sëñ Fall sabur nga fi diina ala juhanna ala la jaajo jamat ne jaajo maam bu jaajo sidi lamin baara jaara amina ay Seex Sidi ma sama waa ngi yàlla yàlla doon leeral Baye Sall Seex Saalu Seex Saalu Seex Saalu ku bëgg Serigne Saliou jugal taxaw ci kaw màggal Serigne Saliou Seex Saalu ku bëgg Serigne Saliou jugal taxaw ci kaw màggal Serigne Saliou Mbàkke Baye Sall Seex Saalu Mbàkke Baye Sall Seex Saalu Mbàkke Baye Sall Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall Cheikh Saliou ana soppeeku Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall tubal te bennul Bamba la jox lu la gañu fay doo doy Bamba Cheikh Saliou Mbacké Ba tubal te bennul moo baax la jox lu la gañu moo baax bëgg Serigne Saliou Cheikh Saliou Mbacké Baye Cheikh Saliou Mbacké Baye Cheikh Saliou Mbacké Baye Cheikh Saliou Mbacké Baye tibal te dollulu Bamba la jox lu na gaañu yaay doo doy Bamba Cheikh Saliou Mbacké Baye tibal te dollulu moo baax moo baax wax leen Cheikh Sidil Mokhtar Serigne Cheikh Mati lay mais Madoro Faye di lay di bàyyi te daawul digle lu aay ana waa Daaru ana soppey maam Cerno Baay Cheikh Fatou Faye مختاتم ايبي باي تداول ديلو اي تداول تداول ورم خباتم ايبي باي تداول ديلو اي تداول وقلن سيبا بكر ترغان من مدرو يكاي دين ايبي باي tabaawul digle lu aay moo baax moo baax borom xibaar lay di baay tabaawul digle lu aay tabaawul بعد البرايا nanu maase teewlu ñu delloo xasida gi day far bàkkaar ku déglu bu yàlla nga seet wut ak bàkkaar ci bari bi sëñ Touba xasida gi day far bàkkaar ku déglu bu yàlla nga seet wut ak bàkkaar ci barke bi sëñ Touba bamba nee na فقلت موت تغفيرا لا أساتر أستغفر الله ضل الله ضل الله والله ترنا يا لا لا لا لا لا Jalala

يا تماول الأمال آخر الله لازم فكل لكم منفر فمن باين استغفر الله يا لا لا لا لا صل بايس اسنا اسنا اسنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا amlaaki waaw tuuba yàlla sunu borom direct ilallahi tabaraka wa taala direct watada borom waxtu juróomi direct munatafatan yàlla sunu borom direct bu ko moo xami mo taasa الفخم متاسفاتا سيدنا محمد رجل الله ورمك محمد وتابا أي فاطمة سيد الله تفتح أي بكال سمع وطلع بكم أخم متاسفاتا tó mọ̀ ọkọ mi mo kà á sáfàdà. Kurman Mami Serigne Mbacké Soxna Lo Borom Tey Fak Baye Laaj jeff Touba ilallah seexu naa seexal xadim Mbàkke bàyyi sëriñ Fallu Mbàkke burum di ndeeg samba yàlla ci baram Mbàkke sëñ Fallu bàyyi seexu mi Karim Mbàkke seex Murtala jumaam Fallu Mbàkke sëñ Xabbaan Mbàkkem sëñ Fallu Mbàkke sëñ Mam Mor Saamum Fallu Mbàkke sëñ Mam Mor Say Fallu Mbàkke alaaji Fallu Mbàkke sëñ saamak xayraat aliye ku bëgg sëñ fallu jugal taxaw ca kaw màggal sëñ fallu borom di ndeeg saam diraaj tuuba ilallah seexuna seexal xadim mbàkke bàyyi sëriñ saaliw mbàkke borom jàmm ak yërmandi seex mbàkke moom sëriñ saaliw mbàkke seex bi jurum sëriñ saaliw mbàkke seex bi jujun moom sëriñ saaliw mbàkke sëriñ saaliw mbàkke borom xabaan lagan njurul ndooka jannatul mawa Serigne Saliou Mbacké yalla yàlla dolli leeram yëpp jërëjëf Touba ilallah magi maam Cheikh Ibrahima Faty Mbacké magi maam Cheikh Anta Mbacké Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp daa bay maam Sey Lamp ngunda maam Sey Ndiaye Lamp maam Amdi Khady Fall Amdi Ndokay Fall Amdi Yacine Cheikh Mbaor Fall sëñ Cheikh Khadiki Cheikh Cheikh njabi faal ak njara wakk ak Cheikh Ibrahima Fall maam say njaay jërëjëf tuuba ilallah seexuna Cheikh al Xadim Mbacke Baye Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke sëñ Moussaïne Bara Mbacke Cheikh Moudaysa Bara Mbacke Cheikh Sidil Maxtaarum sëñ Bara borom gi min ak kaddu gi ak kaddu gi ak Mbàkke Kajoor Seex Sidi Maxtaar borom juróom ñaari sooroor yi Seex Sidi Maxtaar borom kër ngan na borom tawfeex borom Mbakke Kajoor borom lislaam bi ku ko bëgg yëkkatil say loxo ca ka ñu mbakkan Seex Sidi Maxtaar Seex Sidi Maxtaar tuuba ilallah mbooleem mi ku bëgg Seex Babacar Cargaan tay jugal taxaw ca kaw mbakkal jàmbar ji borom jàmbat yërmande Cheikh Babacar Thiergane Ndiaye sëñ Maju Ndiaye borom jàmm ak yërmande xalifa sëñ Daouda Ndiaye borom jàmm ak yërmande xalifa sëñ Maju Ndiaye jàmbar ji jërëjëf وتدم لا تفصل بلغ مرمى سلسال من جارب سما تبركات ay waay mbooloo mi ku may dimbali jóg taxaw ca kaw màggal Cheikh Babacar Thiergane Ndiaye Cheikh Babacar Thiergane borom nexe jàmbar ji jërëjëf Touba ilallah xalifa sëñ Daouda Ndiaye Cheikh Ma Ndiaye Ndiaye sëñ Fallou Ndiaye day bàyyi jàng yi de Cheikh Babacar la tudd te yaakaarul ku dul moom na ñëpp jóg góor jigéen mag ndaw dara ji Serigne Touba bu ñëw fi la jàng yi yëpp ku yaakaar Cheikh Babacar Thiergane te la nga yor moo la ko jox ñëwal ñu teral ko kuñ doon tagg sa maam giir gu mat giir sa géwél di la woy da nga joxe ñuy tudd ki nga xam ne yaakaarul ku dul moom àddina ak alaxira nun sëñ Touba teral nanu jàngkat boo gis am nay kër yori oto ñëw leen teral ko ngir jëmmi sëñ Touba bàyyiwuma kenn góor jigéen mag ndaw nañ dal xaalis bi dalal ko ko ma ne ñun nun mel Cheikh Babacar ah. kër yaa ngi naat terrasse yaa ngi étage yi ay masay la ñuy sol koo dem sa kër mën na laa teral ñëw leen teral ko ngir Cheikh Babacar ban taalibeeb Cheikh Babacar tergaan mooy yërëmtalu fii laa wax na addee ji ñëw na ñëw laa wax ñun campagne ñu politique ñu daa laal suñu mbër ñu war koo teral nañ ko teral ngi tamit Cheikh Babacar na ñëw baas bi na ñëw góor jigéen na ñëpp ñëw ku ko jox yàlla nga yokk dootoo ñàkk ba baw suñ mbër la laal suñ mbër yaakaar lu ku dul moom lu am mooma na addi di ñëw na addi di ñëw na addi di ñëw na addi di ñëw bàyyiwuma kenn laa wax nag ku yaakaar ne bàyyi naa la góor ñeeg jigéen ñi na ñëpp ñëw kii suñ bëri la laal de Cheikh Babacar Thiagane la tudd de tudd keneen amuñu ku dul moom xamuñu ku dul moom bëgguñu ku dul moom Cheikh rek dellul ci sëñ Babacar tuuba ilallah Cheikh Babacar Diargane Ndiaye borom jàmm ak yërmande Cheikh Babacar Diargane Ndiaye borom nexe borom jàmm ak yërmande borom saandatu daaray ni ku ko bëgg yëkkati sa loxo ca ñu màggal jàmbar ji xalifa sëñ Matu Ndiaye jàmbar ji dina jàmm tuuba ilallah xalifa Cheikh Matu Ndiaye borom jàmm ak yërmande borom saandatu daaray ni sëñ Fallu Ndiaye sëñ Dawda Ndiaye xalifa Cheikh Ma Ndiaye Ndiaye borom jàmm ak yërmande ajra jàmm Touba ilallah seexu na seexal xadim sëriñ seexal li jiw borom lambay borom jàmm ak yërmande bàyyi seen jarru ji borom lambay dara jëf Touba ilallah xalifa seexal li jiw lambay dara jëf Touba ilallah Touba ilallah seexu na seexal xadim Mbakke Seex Babacar Jargaan Njaay sëñ Mor Maane Mbay borom jàmm ak yërmande borom saadatu daarayni Serigne Cheikh Al Diouf Lambaye borom pakk bu ñu barkeel bi Baye Serigne Thierno Diouf Lambaye maami Cheikh Ablaye Diouf borom jàmm ak yërmande ajran jàmm Touba ilallah sëriñ maam Tandiir Buubu Silla borom ci la wunta sëñ Lamin ci la sëñ Madu ci la sa Tandiir Buubu Silla borom ci la sëñ Madu ci la sëñ Baara ci la sëñ Sambulu ci la sëñ Tuuba ci la borom jàmm ak yërmande ajra maam Seex Isa Jeen borom jànn ak lagan dra fati borom bayti ak maqaama Seex Awa Balla Mbakke Seex Modu Awa Balla Mbakke Usmaan ak Aydara ak Bay Seex Xaddi Sëñ Ba Santa Ñaŋ Balla Seex Modu Awa Balla Alaaji Maam Cerno Mbakke Seex Amsatu Mbakke Maam Jàmbar ji jërëjëf fayetu bi yor góor Seexuna Seex al Mbakke borom lambar nang ma yombe magi maam Seex Anta Mbakke Ahmadu Mamoun Cheikh Moussa Diagne Sëñ Amady Mbacke Mame Cheikh Anta Mbacke jërëjëf. Faliya tuubi yor jooj. Mawla ne wax ca kàddu Mbacke Serigne Saliou Mbacke borom jàmm ak yërmande Serigne Saliou Mbacke borom daari ñaaru jërëjëf. yor joo Moussa dafa xel. Seexu naa Seexal Xadim Serigne Mame Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf. yor joo. waay yor joo. yor joo Moussa dafa xel. Mame Cheikh Ibrahima. Mbaye Dieng Moussa Kor Fall Dieng Mor Talla Fall Baye Serigne Assane Fall Naaru Kawsara jërëjëf astaghfirullah Seexuna Seexal Xadim jërëjëf ada fal mudafatal Serigne Cheikh Babacar Abdou xalifa sëñ Mbacke Madina jërëjëf lillahi sëñ Baara Mbacke jërëjëf lama Seeku Day sa jërëjëf lama lama lama xalifa sëñ Baara Mbacke sëñ Bass ku jëm sëñ Baara Mbacke borom jàmm ak yërmande sëñ Xaadim moom sëñ Baara Mbacke sëñ Musalim Mbacke sëñ Baara Mbacke sëñ alhamdulillahi maanaam maanaam may saag saag man jaara bu sax ma jàppalookan ay waay moom mi ku may dimbali jóg wax Seex Muntaxa Seex Basiru yàlla fi yàgg teer Seex Muntaxa jàmbar ji yàlla fi yàgg jërëjëf lama xata daawata li xalifa Sëñ Basiru Mbàkke Seex Muntaxa Seex Basiru jërëjëf min baadi ma kuntu xalifa Seex Basiru bu mu si la baram ci la xalifa si Ababacar Jargar Njaay jërëjëf am dal xalifa sëñ Maccu Njaay jërëjëf xalifa sëñ Fallu Njaay jërëjëf sëñ Babacar Jargar jërëjëf ba de Seex Babakar Jarkan Njaay wali wajra jaf am na lu ñu kaafi Seexuna Seexal Xadim Mbakke maami Sëñ Mbakke soxna loo wajra jaf matiidan bi nu fi nu seraa Sëñ Mbakke soxna loo borom tey fat bay la bay Seex Musaa Njaay Mbakke jra jaf suma talaatu ala dere hin mo dere hin mo dere hin mo dere Thank you. xasaayit bi jeex na ku jóg taxaw ba ko yël bu yàlla na nga sedd wecc ak bàkkaar ku jóg taxaw ba ko yël bu yàlla na nga sedd wecc ak bàkkaar xasida bi jeex na acca ngeen baal kon waxtu jot na nu julli si seet jot na nañu maase teewlu nu julli